alors tay euh, ñu daal wax ci li nga xamante moy situation lamb ji parce que gis situation ni mel doy war ku nekk di joxe tay sa appréciation Tay nan gisé situation bi. waaw situation bi moom doy na war quoi parce que tay en tant que membre de l'association association parce que on est une association Té association bu ñi def dara ñun la plupart dañuy waxtan ci consensus ba déggoo si te association képp ku nga xam si nga bok aussi dafa am norme yo si nekkee ba so demee di wax pour association bi dafa am aussi. association bi dafa la war a yabal nga wax pour turu association bi parce que am na bu yàggul sax am na ñuy def ay dérive di di attaqué association bi parce que lii poto la mais ñoo duñ leen toon am solo mooy àdduna nga xam ne gëm nga ko yaa ngi ci kanam defal lu leer rek bu ëllëgee ñeneen ñëpp ñëw ku ñëw bu ëllëgee na fekk nga def lu leer ngeen ànd mm-hmm. parce que ñun association bi tey bokk nañ ci impacté yi parce que Covid bi ñëpp la laal le monde laal yi def ko laal mm-hmm. xam nga président de la république jàppale ñi nga xam ne ñooy def aar jox leen ay centaine de millions ñun recevoir ñu dara lu dëgg ba tax ñu ñu defoon benn euh, conférence de presse woote woon fële Sekatia def naa gisoon nga ko mm-hmm. def ay point de presse def ay sortie parce que mbas mi bi mu ñëwee ñun ñëpp dañ ko concerté wu ñu xamné ne yi la plupart ay porteurs de voix lañ kenn ku ci nekk bi ñu concerté wo tok waxtan ak président Gribo ñu ne kenn ku ci ne fa nga nekk ci say gox ak say rak na gaay dem ci kër yi tok ci kër yi première vague bi non la démé won ku né tok ci kër yi ñu jox ñu sensibiliser nit ñi ñu tak ay masque ñu moytu parce que foofu lañ tolloon ba paré ñu dajalé suñu di ñu am ak suñu touti dajalé ko def ko ci ay camion yobu ko jox ministre de la santé and ak ministre des sports je crois que sénégalais yi gis nañ ko yëkëti ay millions yu bari jënd ko ay matériel yépp yóbbu ko joxe ko man mi fo ci la ci la bokk man ak gré giri boru ñu doon ak gaay hmm. ak bekay mbay jox ko ministre de la santé kon tay ji rafet na buñ démé ba état di subventionné hein ah, parti prise waru ci am war nañ ñu wo subventionné mbeur yi parce que mbeur yi ci société bi lañ bok té dañ ci bari parce que jeunesse su mbeur yi nek ci sportif yi nek ci ci mbeur dafa bari ak football par rapport ak yenen discipline yi mbeur bo leen fi ñu leen ëpp mbooloo ci ay jeunes yu koy pratiquer bariwul te mbër dafa yaatu ginnaawam dafa yaatu parce du mbër bi kase li nekk si ginnaaw mbër bi moo bari parce que mbër bi tey bu amee combat jaaykatu soow bi da siy lekk mu am combat sérigraphe bi da siy lekk mu am combat site internet yi lekk mu am combat ñaankat yi nekk si àll bi dañ siy lekk mu am combat waa seeraas yi xar yeeg nag yi gars yi di rey di saraxe xale yi si koñ bi yooyu yëpp dañ siy lekk kon mbër ginnaawam dafa yaatu du moom kase mooy dem hmm. te ñooñu tey dañoo accessible par rapport ak ñeneen ñi yeneen stars yi ci population mbër tey li ci bari amuñu ay gardien amuñu da ngay soxla ñëw seet si leen te am nañu ngor boo xam ne lépp lu ñu am dañ koy ñoom dañuy joxe kon ñoom mbas mi dañ leen laal kon tey jii euh, defoon nañ ko te président ba ñu ngi koy laaj ñu ngi koy xaar ndax peut-être ubbi nañ làmb ji yaakaaruñ ko woon ko parce que li des si saison bareetul mhm. buñ ko ubbee peut-être ñi am combat dinañ bëre mais aussi nañ xaar xool suñu rakk yu ndaw yi nga xam ne amuñu combat jox leen avant cinquante mille ñu ñu dese fa cent cinquante mille pour war a bëre un ñu lekk ko combat bi ñu ñëw leen da ngeen di bëre tey kooku dina wuti cinquante mille dama ko posé noonu dama ko waxee noonu dem def si kon tey kooku bu ñuy subventionné promoteur mbër mi war nañ ko woo ñu xool partie égale ñu xool nu demee ak nu ñu koy alléger mais pas que ni ñu ne euh, promoteur yi jàppale di leen accompagner état dinañ accompagner pour tek combat mbër yi ñu toog xamuñu nak ban contexte lañu mujjé ak ñi nga xamni ni ñoo ñom lañu mujjé waxal ni tout récemment. ñan lañu waxal waaw parce que ah ñi am combat ni wonañ nañ leen. Mhm. ñu signé té yakarna bala ñu ñëw signé xam naa li ñu signé war nañ ko xol mhm. xol ci yeen texte la la aaju. parce que defana duñ signé aveuglement lo xamni ni tay ñun ñep dañu andon di xex benn combat. pour le bon fonctionnement des lutteurs. Mhm. ak seen aq ak une yelleef ak seen nekkin. Mhm. ñu association boo xam chaque jour dañuy dem ci social di cotiser ñun suñu biir képp ku am problème ñu ñëw seet si la les yeux que suñu moyen def ko ci yow kon tey association de dafa am fond de caisse parce que état daf ñu war a jàppale. ma may rappeler rek temps Ablaye wad bokkoon naa ci ñi nga xam ne nii mutuelle des lutteurs en activité ñun la woon. Mhm. defoon nañ formation faut les institut de management IAM. ba jot suñu diplôme Serigne Mbacke Ndiaye moo ñu ko joxoon Ablaye Wade waroon financé ci mutuelle boobu 2 milliards finalement mu wàcc. Hmm. mais 2 2 milliards yooyu tey ñu ngi koy réclamer di ko ñaan président de Macky Sall pourquoi pas parce que tey moom man gëm naa ne suñu ko joxoon tey ji hmm. ñu ubbi benn problème. Hmm. parce que képp ku am combat sa xaalis fa nga koy versé di joxe ci intérêt bi ku bëgg a leb liggéey dinañ la si jox nga liggéey. intérêt boobu banque bi di am suñu paa yi nga xam ne ni dañoo retraité tey. amuñu benn subvention amuñu lera liñ ku ci nekkoon champion bi nga pare pare nga si. Mm-hmm. ñenn ñi dañu feebar sax pour ñu faju problème la. Mm-hmm. kon tey ñooñu dinañ leen dimbali def benn barème boo xam ne un certain nombre de combats boo xam ne mbër bu am licence bëri ko rek bu ëllëgee soo demee ba toll si retraite ñu yëkkati benn suul la ko jàppale. ngeen am benn cotisation boo xam te koy def soit mu doon mensuel wala chaque 3 mois mm-hmm. ngeen am kees trésorier d'ailleurs muy les deux mhm. ma ma koy nuyu au passage dañu jënd carte de membre francs di cotiser chaque mois francs mais mbeur yu bari ñu ngi ci amna ño xamni nous ñu ci ñoñu nga xam suñu frère la te que cotiser mbir di la nous wuy si association mu am problème ñu avons mi problèmes yobul ko ko rafetul mhm. ñun nañ xamné ay gor lañ suñu train nous ndo di nous lolu am solo ñu bu sincère parce que tay activité Sénégal parti fu ñu football bi à 100 mhm. aussi lancer un appel que ñu parce que association bi am nañ ay personnellement nous am nañ projet parce que

esportu yi tey ji suñu amé combat bo bo némé benn combat nii ni nit ñi di ci waxtaan rek day dindi stress nit ñi di ci nekk di wax pendant de lool rek stabilité deuk la te te ñi koy def demuñu fenn demuñu amuñu ay compte contre Singapour wala fenn mbeur yooyu sen compte bancaire fi lañ am lépp lu ñu am si dëkk bi lañ koy def ba paré di dox sosial, social kon koku war nañ leen jappalé mais tey CNG bi ngay dégg ni sax accompagnement de l'État la parce que man nekk na ni go xamni damay wax damay ñëw dem dem wax ak kilifa gi laaj ko mu wax ma ministre des sports dama wax moom mu laaj ma président bi fi nekkoon damay wax ak moom ma koy nuyu docteur Adji Sarr la. waaw moom suma la. kon nag comme e-, comme nag làmb accompagnement la ñuy def. lu ñuy ñaan mooy tey état waratuñu def accompagnement dañu bëgg mu si mu joxe làmb mu yëkkati benn budget génne ko ne temps bi état maa ko jox làmb. si mm-hmm. boobaa làmb lu bari problème yu bari mën na bañ am parce que tey da ngay gis tey. Euh, gestion de la lutte bu ñu amul yenn fonds yi tey mbër bu nga xam ne def nga dara tey yenn suuf yooyu nga xam ne moom la ñuy jëlee yi xaalis boobu muy jëlee yenn dagg mbër yi loolu la ñuy ay drapeaux céréales ak yenn activités yu bëree bëree hmm. te yooyu yëpp état moo ko war a ci loosu état la war a nekk hmm. kon dañuy ñaan président de la république mu subventionné làmb ñu koy ñaan aussi mu recevoir ñu parce que ñun am nañ xalaat ak ay projet yoo xam ni buñ ko amee dans dix ans mbër Sénégal dootu sonn kenn ku ne dinañ la jàppale. Mm, wax nga léegi li nga xam ne moom ngeen di ñaxtu yéen waa association bi euh, ci côté état mais mu mel ni fi mu toll nii yéen nga koy jàppale ci xeexam parce que gis nañ ay champion yu mag daal di toog récemment euh, mel ni kuy def campagne ci wàllu vaccination bi bi nga xam ne moom la ñuy wax. mais gis nga ne gis nga xolu mbër yi nag ni mu yaatoo yow yaa ngi kaas pour président de la république recevoir la ah, jox nañ les acteurs. de la culture te tey kuy wax sport sport bëre nga xam mo, mo ngank moo ñett yi culture loisir pour nga nek mbeur il faut nga nek un jeune athlète sportif kon ministre des sports ñun dañoo bokk ak mom. culture moy lan décor bi nga xam lamb espèce ou euh, rango ki galadje, xarfa xuufa amna am na ñoo xam ne rek mo leen ci neex mhm. amna na xam fecc bi rek mo leen neex kon ñun ministre de la culture sax buñ ko joxé sax xaliss ñun dañ ci am ben parti dañu waron jox suñu parti ne mbëri kat sen parti mu ngi saka man ak ñom ñu jox leen bàyyi ñu te terewul bi bi Sénégal soxla mbeuri jog nañ yëkëti sen ay millions jënd ko ay don yobbu ko. Mhm. jox ko ministre de la santé bi Sénégal soxla tay ah parce que kenn ku ne da ngay wax sa axluwaay taala kenn ku ne da ngay wax aussi li nga xamne yow sa euh, sa position la. personnel la sa position personnel la. parce mhm. que Sénégal lañ wax tay mbeuri ñom amna ñi nga xamne dem nañ ñen ñom ñu ci association bi. association bi waxagul nag ci turu association mais ñoom wax nañ te gis nga fi ñu wax ñoom dañu ñëw positionné ñëw pour état te gis nañ tey rek maa ngi seetaan daa mel ni ministre ministre la santé ñu koy ñàkk mm-hmm. di ñaan rek parce que kenn ku ne parce que euh, communication bi doxul ba tax na nit ñi ragal nañ ñàkk yi man mii di waxal yow man dama ragal ñàkk yi mm-hmm. mais néew doole tooñ la par rapport ak tubaab yi système bu ñu bëgg a def ñoom xam na nu ñu koy defee pour nga mucc si day jafe dañuy ñaan suñu borom dimbali ñu bu ñu fi indi ñàkk yàlla nañ am ñàkk yu baax yi. Mm-hmm. suñu ko amee ñu ñu ñàkku ci jàmm. waaw loolu la ñuy ñaan mais nag mooy loolu quoi. Mm-hmm. parce que daal dañuy ñaan rek parce que dañuy ñaan daal parce que mbir mi toll na foo xam ne am na ñu wóolu am ñu wóolu man wóoluwuma dama ragal ñàkk yi. Ah, comme ni nga ko waxee communication bi doxul ñu bëgg kaa jaar la ci sa naataango mbëri loolu ànd nga ci wala àndoo ci. waaw loolu moom loolu moom pour l'instant nii ànduma si. Mm-hmm. parce que xaw ma ban contexte lañ leen woo dañu am combat waxtaan peut être briefing nañ na ñom si ñu leen jàpp si combat mais ñi amul combat nak association bi moom waxul parce que man tour association bla je suis le coordinateur de l'association nationale des leaders Sénégal parce que concerté gu ñun suñu biir waxtaan. té mbeuri yi duñu am combat kese ñi amul combat ñaata ñaata lañ milliers c'est des milliers et des milliers. té mhm. tay suñu démé ba joxé ben mo dor né mbeur yëpp dem leen ñàkku ci le leen comme niñ ko waxé won si bu njëkk ci mbass mi. Mhm. concerté ak and ak président gribo né gaay yi. nañ leen wax xale yi ñu dem toog ci équipe leen arrêté entraînement yi nañ leen takk masque ah, di sensibiliser loolu defaguñ ko. Mhm. defe naa ne loolu association bi vie associative noonu lay demee dañuy wax ci consensus te kon naa ne euh, président Gris Bordeaux déggaguñu te woon maa ngi koy woo sànq jotuma ko. Mhm. parce su ma ko su ma ko jotee naa ne nu mu demee ban contexte lañ am ñoom. ba mhm. mën ba ñenn ñi accordé lii ak nan lañ ci war a def parce que dañu war a waxtaan suñu biir. joxe benn moo d'ordre ñun ñëpp ñu àndandoo si parce que noonu lañuy ñuy doxee bien vrai que nag gis nga loolu ni mu rafetee

dinañ ne ñun ñëpp kat lii la ñuy def comme ni ñu ko waxee woon kenn ku ne chef de file nga fi nga nekk na nga ko wax waxal say rakk nii defal ñu def ci ay conditions problème parce que ñu ci doxee mhm. waaw du ñu dox ci informel quoi ci